mbokki xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci ànd bi ngeen ànd ak seen info international ci kàddu gi seen mbokk moo Dramé ñu amati mbégte ak contentement ñëw di leen présenter seen émission takku tekki di premier numéro tey nag ñu seeti ndaanaan émission bi li ko tax a jëkk moo di di wër ndaanaan yi di leen wanaleeg askan wi ñi xam dëgg-dëgg ñoom ñooy ñan ci li ñu yëngu suñu premier numéro comme ni ma ko waxee soxna Mame Bousso Sakho madame Diop manager Safir Forever Living Prodac International réseau Xéwal kenn dootu ko présenté ci mim réew moom lañ leen fa fas yéene wanale incha allahu taala bu ko defee dañ koy bàyyi mu nuyoo ak askan wi ñu soobu ci waxtaan bi. bismillahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa euh, sëñ bi Mouhamed ñu ngi leen nuyu di leen siyaar waa Sene Info euh, di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla boole ñu ko di leen jaajëfal macha allah ci xalaat bi ngeen xalaat euh, émission bu am solo bi nga xamante ni li ko tax a jóg mooy mbirum entrepreneuriat macha allah euh, te loolu nekk lu am solo ci àdduna ndax ñun ñëpp buñ jógee nekk ay entrepreneur créer ay entrepreneur macha allah su ko defee. réew mi dina mën a baax ah, àdduna bi dina mën a euh, jëm kanam incha allahu taala man nag euh, maa ngi tudd madame Diop Mame Bousso Sakho nekk manager Saphir Forever Living Product International euh, Forever googu nag li ko tax a jóg mooy xeex ñàkk ak wérati mu ngi ci àdduna bi ba mu daj muy defar ay produits mucc ayib base bi nekk aloe vera aloe baba densis miller macha allah. ak les complement alimentaire ak li jëm ci soins personnels macha allah ak hygiène de hygiène de vie macha allah ci entreprise boobu laay yëngu Mohamed Dramé. Euh, sëñ bi Forever maa ngi ci dugg 2010 ba ma ciy dugg li taxoon ma dugg ci mbirum wér-gi-yaram ma ma ci dugaloon. naam xam naa ko lu ëpp fukki at ak ñett maanaam 13 ans avant ma ciy dugg ndax 97 laa ko xamee woon ca Italie ci ay tubaab ñoo ma woo ñoo ma invité woon seen salle comme defal ma présentation comme ni ñu koy defee fii ci Sénégal macha allah ma demoon yu fi neexoon ma loolu ma bëggoon bokk waaye ñi wanoon ma ne ma amagul Sénégal waaye c'est partout dans le monde yow yaay ki nga xam ne yow yaa ko war a dugal Sénégal ma def ko nag yëfu xale ak yëfu jigéen ma bàyyi. Euh, ne ne non non man damay ñibbi Sénégal macha allah euh, yàlla dogal nag bi ma ñibbisee ba 2009 ma xamanteek sama benn rak macha allah mooy sama marine ci société muy soxna jaara soxna maam jaara Touré mu wax ma ko ma ne ko lii dee xam naa ko bu yàgg waaye taxul doon tamit ma dugg si ñu am relation nag macha allah ci mille 2009 ba mille 2010 yàlla dogal 2010 nag tawat dal ma man tawat naa waaye boo xam tawat boo xamante ni yàgg na ci man euh, depuis ba ma juddoo ba léegi muy wàllum bët macha allah sama jafe-jafe la woon waaye même tawat bi daal sama doom macha allah mu nekkoon lu metti ci moom euh, lii moo tax ma xalaat dem waxtaan ci ñoom ñu dugal ma ci société bi ñu daal di ci faju ñun ñëpp macha allah ñu gis ci suñu bopp te sama tawat boobu man depuis ba may xale ma juddu ma maanaam 6 mois lañ ma wax ne la ma daan la ma daane loon booba maa ngi nàmp sama weenu yaay taxutoon mu wér maa ngi continuer woon di faju ànd ak moom samay bët daawul neex daaw ma gis sama takk lunette macha allah kon alhamdulilah ci bi man même bi ma nekkee Europe 10 ans ya ma fa def sax dama nekkoon ak sama ophtalmo tout le temps mu ngi may bindal ay lunettes comme ni ñu ma ko doon defalee fii Sénégal lunettes yooyu ñi ma doon jox. tout le temps da doon euh, dañu yokk degré bi parce que samay gët bët da doon gën di lëndëm ba pare dafa jëlloon macha allah waaye bi ma duggee forever alhamdulilah rabil alamin samay bët vision bi dafay yokk maanaam gis-gis bi day yokk maanaam jëlli gi nga xam ne bëti jëlloon na ko mu bàyyi ba tax na na ma doon demee di changer ay lunettes ngir du ma arrangé parce que bëti day gën a lëndëm léegi noonu lay demee di changer ay lunettes ndax léegi lunette dootuma arrangé ndax bëti day gën a leer léegi mën naa liir sans ma takk lunette alhamdulilah loolu maa ngi ko amee ci Forever Living Products. am ko ci mbirum santé macha allah euh, ci laa décidé ne man fas naa yéene di ko partagé ak képp ku ma xam rek dinaa ko waxal Forever dinaa ko yëgal Forever soit yàlla boole la ci wala yàlla du la ci boole macha allah wala booleegu la ci sax ndax. man lu mu yàgg-yàgg mun na am yàlla boole la ci man dinaa la yëgal foore ba kooku moom dama ko jaayanti macha allah yëgal gi ci kaw yëgal googu nag ma ko yëgal nit ñi ci askan week euh, macha allah ak ku ma xam ku ma gis ku fuñ mën a dajee rek macha allah ak rencontre bu ñu mën a am euh, ma dinaa ko partager ak yow ci loolu nag ci la foore ba dem ba def ma manager Safir macha allah ci la ma foore ba permettre ma mën a réaliser lu bari ci sama àdduna macha allah nga xamante ni dem naa ba léegi def ko sama liggéey presque mu nekk cent pour cent ci man mu nekk sama liggéey macha allah moom moo permettre ma mën a xam 14 régions yi nekk Sénégal yëpp macha allah fu ne ma am fa xarit ak mbokk te ñooñu ma xaritoo mbokkoo loon lépp amu ci kenn koo xamante ni mos naa wax ak yow ci produit yi nga daal di ko jëfandikoo ma am ci déception déedéet waaye amu ci kenn koo xamante ni mos naa wax ak yow ci liggéey bi macha allah nga liggéey ci. te mënoo ci réaliser say rêve maanaam say mébét amula ko ci loolu nag tey moo ñu permettre ñu def tour du Sénégal waaye moo ñu def permettre ñu def tour de Afrique waaye moo ñu permettre ñu def tour du monde alhamdulilah na lien boo xamante ni ñu koy bu ñu leen ko joxee buso aloe vera point forever living point com wala revenu illimité point forever living point com incha allahu taala kooku bu ngeen ci duggee euh, bu dee nit ki dafa bëgg takk tekki bëgg liggéey am bu duggee ci revenu illimité bi dina ko wax naka lay def ba dugg naka lay def ba euh, tekki ci incha allah wa illaa mu duggee ci pour euh, surtout produit muy buusa aloe bi dina gis catalogue produit bi dina gis njëriñu produit bi en même temps ay message am ak ay contact am dinañ ñëw ci ñun su ko defee dinañ leen contacter ñun it jàppale leen accompagner leen ci naka la ñuy def ba waaye dinañ leen accompagner macha allah ci naka la ñuy fexee ba takku tekki ànd ak ñun tekki macha allah di dawal oto di am kër. macha allah alhamdulilah conseil bi may jox euh, ndaw ñi rawatina sama mbokk jigéen ñi mooy lii ñu nekk de muy muy ba tey boo koy def mun nga ko def comme mi-temps wala plein temps kon excuse amu ci maanaam mënuma ko nekku fi. su ko defee ñun ñëpp buñ bokkee xam ko incha allah euh, yàlla dimbale ñu ñu ànd ci di ko def comme mi-temps di ko booleeg suñu sëy wala di ko booleeg euh, suñu liggéey dinañ ko mën a def sans pour autant ñu am ci problème ak njaboot gi ndax man avant mooy bokk Forever dama nekkoon di nekk commerçant di jaay daan dem Sandaga macha allah ak yore magasin nga xamante ni fajar laay xëy guddi laay wàcc duma xam dara ci sama famille ak Forever nag tey damay xëy def toppatoo sama njaboot ñëpp ñi jàngi ma def samay euh, rendez-vous euh, livré ñi ma war a livré jàppale ñi ma war a jàppale macha allah su euh, samay doom bu ñuy wàññeekuwaat mën nañ mën na am ñu fekkaat ma ci kër gi macha allah su ko defee loolu may conseillé sama mbokk jigéen ñëpp ñu ñu ñëpp ñu takku taxaw pour tekki macha allah ci Forever Living Products ndax mbir la moo xamante ni mun na émerger réew mi mun na émerger àdduna bi rawatina ñun jigéen ñi nga xamante ni. dañoo néew doole. Ah, ñun ñëpp buñ bàyyee xel li tax li waral màggal gi rek macha allah danañ takku te danañ tekki ndax borom màggal gi dafa liggéeyal boroomam liggéeyal ah, liggéeyal ah, askanam macha allah moo tax tey ñun ñëpp jóg pour jëm ca ma Touba pour. def li ñu màggalal ko maanaam santale ko yàlla comme ni mu ko waxee ndax dafa woote pour ñu santale ko yàlla ci cant googu nag coono moo coono ba njëriñ fekk ko ci moo waral mu mu mu woote pour ñu santale ko yàlla kon nag naka ñoonu ñun ñi nga xamante ni tey ñu ngi nekk Sénégal ah di roy ci moom kon li ñu war a def mooy takku tekki ak forever nag macha allah Rese Xewal Mame Bousso macha allah dinañ ànd ak mbooleem ahlu murit ak ñi nga xamante ni ñoo fay ñëw te duñu murit sax macha allah maanaam àdduna bi yëpp dinañ ànd ak ñoom euh, euh, gunge leen euh, nekk foofu ca Daaru Xuddoos Touba Daaru Xuddoos macha allah te wetu jumaa ja jàkkaarloog mbaarum Daaru Xuddoos macha allah foofu la ñuy nekk ànd fa ak màggal gi di màgg di santale yàlla góor gi macha allah muy Cheikh si Ahmadou Bamba waaye di fa partagé société bi muy entreprise bi di wane njëriñu produit bi di woo nit ñi ci liggéey bi ñu bokk liggéey bokk am takku tekk muy xale muy mag muy góor muy jigéen macha allah ñëpp xaj nañ ci ñu ngi ñaan ñu ngi laa ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ànd seen ñun incha allahu taala. jërëjëf ñu ngi lay mhm. bu baax a baax. Mhm. di am mbégte ak contentement yéen ñi nga xam ne ñu doon suivre ci mhm. seen info international. en tout mission bi émission la boo xamante ne dañ lay fekk fa nga nekk. wane la wax askan wi yow yaay kan ci li yëngu te en képp ku mu yitteel mën nga jël numéro boobu contact ñu service commercial Seneinfo International incha allahu taala ñu fekk si la siwal wax it li ngay jaay ak li ngay yëngu ba nit ñu xam ko incha allah mën a waaw xam yoon bee ko gën rafet bu mën a toog bu gën taar fa kàlla maam bu sa saaxoo ndaanaan moom lañ fekkee woon doon ko am ak moom entretien taar fa kàlla am na solo ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dox daje ba beneen yoon incha allahu taala barakallahu fikum wasalaamaaleykum